الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة الحجرات ci laay fukk ak ñaar boo soo mi ngi wax ni yaa ayyuha allazina amanu ijtanibu kasiran min azanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu sadaqa al azim balax rasul nabil mustafa al karim sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi borom bi moo ngi wax ci saar wi nga xam ne mi ngi wàcc maytul munawara ci juróom-ñeenteel atu gàddaay gi nga xam ni benn at rek lañ ci teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuyu ji boromam fukki at ak ñett Makka fukki at a munawara pour wax leen importance su saar bi saar wi nekk saar woo xam ni mooy saar yu gën a actuel ci saaru alxuraan yëpp ndax saa su ne foo ki tollu rek mi ngi wax ak yow moo tax tuddee ko dëkkuwaay les appartements waaye dëkki ni nekki ni lay wax mu ne ci fukkeelu aaya bi ak ñaar yéen way gëm ñi mooy man mii di wax ak yéen ak yéen ñii di ma déglu ak ñi nekk ci àdduna bi wërngal këpp di topp seen jotaay waxtaan fii ci évidence l'évidence TV nekk ay woy gëm yàlla sunu borom subhaanahu wa di ñu moytu ndikuloo njort nee na na ngeen ko daw na ko sori na ngeen ko moytu ndiku iggi tani boo la wax iggi tani boo daw leen loo leen mën bàyyi leen ko sori leen ko kasiran mina zanni ndax lenn lu bari ci njort yi bàkkaar la te lii nuy wax nag wolof day wax ni wax neexul digg neex am na koo xam ni dara yàqul digganteem ak moroomam lu dul njot dara yàqul digganteem mook koy ki mu àndal muy boroom këramam lu dul njot ama diggante yoo xam yàqu nanu ndax njot dangaa njot ki nit loo xam ni am na amul yaa ko njort rek tegoo ci sa bët dara leeru la ci ndax li ngay njort moom tegoo ci sa bët dara leeru la ci ndax njort moo lay yóbbu ci tagas tagas mooy di espionner nag topp waaja rek topp ndaw sa rek fu mu dugg nga dugg fa jël ay numéro téléphone am ak di xool ay audio am topp lu ko def loolu yoo paparazzi yi doon def Italie fay nit topp nit fu mu dugg la muy def la muy xool boobu mécanique am boo xam ne nag moom si psychologique mooy yow lekkatoo naanatoo taatoo dara lu dul di yëddu maanaam di yërlu sa moroom ci anam goo xam ne yaa ngi ko yaa xam noo koy defi ba mu jural nag bés la nga doon njort nga ne ko paw ci diggu ci diggu askan wi gis koo xam ni bëti dafa xonq xëy na ñàkk nelaw la wala flux flux sanguin ci côté bët ya les les veines nga ne ah ñoo jàpp ni ñuy jëfandikoo ñoll wala ñuy jëfandikoo yu xaraam yooyu seen bët day xonq yow amoo dara lu ci leer nga ne wax day jëfandikoo loolu gis ku jib maanaam bu njëkk ba sax xam nga léegi tawee na gis nañu bu njëkk ba jib dafa daan jàpp ay les lèvres nga gis koo xam ne dafa lakk xonq amoo looy xalaat ci loolu lu dul kii jëfandikoo day jëfandikoo jëfandikoo katu ñol la wala yàlla tere araamal maa nga ca gis jigéen joo xam ni guddi lay liggéey moo xam hôpital la nekk moo xam assistante lan la guddi daal koy gis daal muy wàcc rek yore otoom wàcc wala taxi amoo looy xalaat ci moom lu di kii day jaay boppam loolu mosoon nañ koy def théâtre temps yi théâtre di am gis koo xam ni itam euh, ni ko yàlla bindee noonu rek la ko yàlla bindee ndeysaan mu mel ni ko xaw a doyadi nga am foo ko foo ko foo ko askanale am na ku njortu si jabaram jabar njort si jëkkër de telle sorte que euh, bu yàggee rek frustration am ak yeneen ak yeneen ba diggante ba yàqu sa jabar daan wàcc benn waxtu wi ñëwul waxtu boobu sa boroom kër doon ñëw waxtu sàngam ñëwul nga nekk ci moom di njort ba mu teg reer bi wala mu teg añ bi nga football añ ba gedd daal di def sa xel yaa def sa xel yoo xam ni yooyu yor yaa ko yaa ko yaa ko euh, def ci sa biir bopp boo demee ci suñu milieu yi suñu jàkka yi gis imaam yoo xam ni naayim bi wala ña nga xam ne ñoom la nekkal na ngi njort ci moom ci ñi nga xam ne ñu mbiri xaalis ay kees am la ñuy gérer noo ngi njort ci ñoom njort nekk loo xam ne nag te bu yàggee nag borom bi ne nag loolu bàkkaar lay nekk moo tax mu ne inna baada ni ismun nee na lenn lu bari ci njort yi bàkkaar la wala teges teges nag nekk loo xam ni fii ñu toll léegi ci le numérique gis bàkkaar wax léegi ngay wax léegi mu egg Australie wala mu egg Japon fekk yow la nga wax euh, du dëgg yaa ko xalaat yaa ko créé sa imagination fertile rek adduna tukki nga xëy gis benn waaye xëy suba rek bañ kenn waaw léegi gis koo xam ne da ngay xëy suba rek bañ ko wala moom mu bañ la lan njort waaw ana lu njort si moom moom itam mu am lu mu njort ci yow. am ku wax ay wax jëme ci yow dem ci moom fekk nekkoo fa euh, mu nekk loo xam ne da nga yaakaar ni ñun Sénégal nag aaya bi bi ko yàlla di wax si ñun ñi la ko wàccee ñun jullitu Sénégal yi ndax lii nuy wax nii fan la amul ci ban secteur de la société la amul boo demee ci kër yi nga xam ni kenn mësul woon kër yoo xam ni ay reposoir lañu woon ci wàllu société nekk ay këru diine wala mu nekk leneen yooyu def ciy xew ay njort sëriñ bi xëy bàyyi taalibe ba wala taalibe ba xëy bàyyi sëriñ ba wala jabar sax xëy rek jël ay bagaasam dem yoonam ndax ndax jëkkër ji wóorootu ko mi ngi njort ci moom loo xam ni kenn xamul lu mu doon ba mbokk yi yii nag ay bàkkaar la ay bàkkaar la yoo xam ni mën na la jural ëllëg euh, sa kanamu sa borom euh, ay demlante ak ñi nga xam ne ñoom nga nekkaloon di njort mu jural la bàkkaar yu mel noonu moo tax suñu borom wax ni yaa ayyuhaa allaziina aamanu yéen way gëm yàlla yi igitani boo caché mina zanni ah inna baad inna baada zanni hismun wala tajassasu français bi mu ne éviter de trop conjecturer sur autrui conjecturer conjecture mooy njort ci nit rek car une partie des conjectures est péché seen mbokk daara maas jiey ci waxtaanukaay wi fegoo nag technicien bi di René ci euh, caméra bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci régie bi leen jox dig daje incha allah ci beneen jotaayu tafsiru 5 à 10 minutes ci alquran karim wa axiru daawaana an alhamdulilah alamin wa salaamu aleykum wa taala wa barakatuhu